jëlilaayi maskaniitu baabaat misras mi abijaayi xayri ma nabaat tey li ñu yëkkati rek rek rek rek mooy tey ji jëmmal li nga xam ne tey ñun ñoo koy liggéey ñoo ci am tolluwaay bu bu bu bu suñu borom defar ñu liggéey lii muy Trésor Mina ñu téye ko nag lu toll ci benn at ba ci ñaari at a ngi nii ñu nekk ci di ci góorgóorlu waaw tey nag ñu toll ci waajal màggal ñu ne it nañu jóg comme boobu léegi ñu ngi ñu ngi jàpp nekk ay taalibe nekk ay ndongo ci waxtu wi ñu toll yi tey àdduna ak li ko ëmb coronavirus ak leneen ak leneen waaw ñu ne nañ jóg yóbbu suñuy li nga xam ne tey suñu borom dogal nañ ñu di ko liggéey muy détergent bi trésor mina eau de javel gel antiseptique lépp rek ngir ànd ci liggéeyub sëñ bi ci màggal gi ñu jëm ngir suñu borom def ci tawféex maanaam jàppale ñëpp ñu màggal ci jàmm waaye it ànd ci ak Touba jëm ci kanam ngir ànd ak moom ci liggéeyu màggal gi waaw fas yéene ci nag tàmbalee tey ba keroog màggal gi di di di jeex waaw fas yéene ñu ci daal teggi tànk lii rek lenn la rek ci lu ñu indéegum waaye daal ñu ngi wàcc leneen ak leneen ak leneen ak leneen ci màggal gi ñu jëm. waaw yi am na am na am na ay ay mbir yoo xam ne aussi xam naa ne bu ñu yeggee ci màggal gi nit ñi dinañ ko gis muy euh, les distributeurs les distributeurs automatique peut-être di ànd ak maanaam jumtukaay la boo xam ne peut-être dañ ciy def gel bi au lieu ngay jël gel bi di ko téye ci sa loxo maanaam nga dugal sa loxo rek gel bi sotteeku wala nga du teg sa tànk gel bi génn waaw ci jamono bi ñu toll nii day gën a yemb waaw loolu daal ut nañ ci peut lu toll ci fukk wala fukk ak fukk lu teg loo xam ne incha allah bala màggal gi di tàmbali dañ ko indi pour jéem ko indi pour jumtukaay boo xam ne nit ñi nañ ci mën a jàpp daal. Euh, sëriñ bi mu ngi leen di nuyu di sëriñ Abibullahi ibnu Cheikh Mahamadul Fadal mi nga xam ne mooy jëwriñi daayira nooru daaree ni Touba ca kanam di euh, rafetlu bu baax seeni jéego ngeen jóg ngir ñëw bokk si ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéeyal sëriñ Touba ci dëkkam bii muy Touba te ñaanaloon boppam yàlla mu may ko dëkk bii mu nuroog turandoom ba nekk ci àjjana ñu jóg nag ci ndigalul Cheikh Mahamadul Muntaxa ngir defar Touba yàlla dogal ngeen dégg ko sos loo xam ne eh, jumtukaayu liggéey la boo xam ne yàggagul waaye mu mel ne bi ngeen ko sosoo dañoo toll ci wax daa daa sosu rek ci waxtu woo xam ne dañ koo soxla ndax dañuy wax ne ku bëgg a jëm ci kanam da ngay seet ku jëm ca kanam nga ànd ak moom sëriñ bi nag nee na li ngeen fi indi rëy na ci moom lool waaye na ngeen xam ne day si ne leen ko defalaat foo xam ne it foo am njariñ lay doon ndax lépp luñ dugal ci Touba ci kanam benn mu jëm ci biir dëkk bi ci suufus dëkk bi wala mu dem ci daara yi nga xam ne ñoo ne ci biir dëkk bi wala mu jëm ci néew doole yi nga xamante ne ñoo ne ci biir dëkk bi kon nag seen jëf jii leen rek la ciy dool yi day wax ne yéen da ngeen ñëw bokk si ci tubaa ci kanam kon li mu leen digal bu ngeen demee ngeen wax ko kilifa yi na ngeen ñëw ci Touba ci kanam jël ci bolog yi yóbbu ko ca entreprise ba képp koo xam ne weer dee na nga dagg sa 1000 francs nga xam ne kuy jëndati carte day mën a dañ ko man na ko demal Mina soo demee ñoom partenaire lañ ci biir Touba ci kanam ba nga xamante ne bi danañ xam ne yéen lëkkaloo ngeen ak Touba ci kanam fas yéene jëmee Sénégal ci kanam wa najjini min sharri saakin bala wa sharri kulli walidin wa ma walad wal takfi sarrafa min wayni wa kulli man xasadani bil ayni